إليه اهتمامي حسبي الله بكل باب علينا دائما أبدا ودائما يحسدني حسبي الله الله حسبي لمن بسوء كعادتنا كذاك عندما ماتي حسبي الله وعند مسألتي في القبر لا فرقت لمن تركت ذنوبا حسبي الله وعندما نسب الانسان معذرته لجنتي الهدى حسبي الله الله حسبي اذا مد الصراط على مقوي جهنم مكان حسبي الله الله حسبي لا تسواه له توكلي وقيادي حسبي الله يا رب صل على المختار من مدرب في حقي قلت حقا حسبي الله وما تصلي على آل صحابتي ما قال عبد المنيب حسبي الله اللهم يا من أظهر الجميل وستر الفتيح ولم يعتق بالدليل ولم يتق سترا ويا عديم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصرف ويا عظيم المن ويا مبطل العثرات ويا مبتدئا بنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي هذا بوحدي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي هذا بوحدي يا ربي ويا سيدي يا مولاي ويا أسألك أن لا تشير بالكل ولا الدنيا ولا بعذابنا فضل علينا إله العرش خالقنا بصحبة الحب في الدنيا والأخرى لذاك توسلنا إليك بكل ما أتت السماء مختلة بسوريا برك مكة برك مدينة برك فاس برك التيارات برك سيد الحاج مالك برك شيخ خليل ak njàngale yonent yi c'était juste pour ñi nga xamante ni daw nañu songu kër gi wala daw nañu songu kër yi diine yi ñu xam ne li ñuy song bu fekkente ni yuuxu la ak fittas ak jaayu jaratu ko li ñu ci soxla mooy mu am jeexital ci sa xol te bu amee jeexital ci sa xol am jeexital ci seen cër bu léegi bu ñu la jàngalee dundinu yonent bi nga ne dama bëgg yontu yàlla Muhammad moo tax ma leen gàmmu ji Tiwaawan dama bëgg yontu yàlla Muhammad moo tax bu ma déggee ñu koy way sama xol day seet ñu ne la léegi yonent boobu nga bëgg ba boo ko déggee sa xol seet yonent boobu mosul fen yow war ngaa rus a fen bu fekkente ni cofeel gi ngay woote ci yonent bi dëgg maanaam ñun la yonent boobu nga bëgg mësul yàq deru nit yow war ngaa rus a yàq deru nit bu fekkee sa cofeel ci yonent bi dëgg yonent bi nga bëgg musul jël alal ju mu moomu yow war ngaa rus a jël alal joo moomu yonent bi nga bëgg musul nekk rambaaj musul nekk jaxasekat musul musul maanaam jikko yooyu ñu la jàngal ci yonent yàlla Muhammad yow bu fekkente ni cofeel gi ngay woote ci yonent bi dëgg la yow jikko yooyu dafa war a rogalaat ci yow jikko yooyu dafa war a jeexital ci yow da ngaa war a bokk ci ñi nga xamante ni dañuy royaat jikko yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax kilifa indi boobu tem ngir ndaw ñi nga xamante ni ak mag ñi nga xamante ni sax ñoo ngi xeeñtu jeexitalu xadara maliki bi ñu xam ni amuñu benn yitte bu dul topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que nit it boo koy bëgg bëggeel gi day am fu mu jeexitale damay wax ne ñi bëgg nit yi àdduna yi maanaam ki bëgg waali ki bëgg Viviane ki bëgg keneen da ngay gis mu koy nduru ndurulu di waali waalilu di doxe comme moom di sole comme moom léegi yow nga ni da bëgg yont yàlla Muhammad te royoo benn jikkoom damaa bëgg sëñ Babacar si ñun la sëñ Babacar musul wax lu dul dëgg yow nga ne taalibe sëñ Babacar laa te fa nga dëgg fu ñu déggee wax ju dul dëgg yow la sëñ Babacar musul jël alali jàmbur nga ne da nga koo bëgg te foo toll yaa ngi tiriyande sëñ Babacar si nitu yàlla la boo xam ne musul musul fecc kóllëre yow nga ne da bëgg sëñ Babacar moom rek nga sopp te kóllëre boo fas fecc ko mais du dëgg wa laysa nafrun ala xubbin bila amalin wa taabian sunnate al muxtaari soo ko defee dar tanimi loolu la Alaaji Malick bind te Maodo dafa waxaat feneen ni mandarga yi ñuy toppe roy yonent bi ak sunnaam ak bëgg ko Maodo nee na mooy istiamalu sunnatihi waaye min jumlatil umami nga roy yonent bi waaye ci mbooleem mbir yi nga roy ci yonent yàlla Muhammad moo tax ma ne la sew-sew bi ñu am ñun mooy li gën a li gën a tumuranke ñun am nañ mooy mag ñu baax mag ñu yiw loolu am nañ ko mag ñu mën a jël exemple am nañ ko mag ñu ñu mën a tegtal fu ñu jaar am nañ ko mais tax ñu lànk bañ a topp mag ñooñu lu tax li mag ñiy tegtale teguñu ci sunu tànk te loola moo fi nekkoon damay wax ni lu dul dëgg jamonoy Cheikh El Hadj Malick ba léegi ku la ko fi indi ñu la dëgg la waxul dëgg du dëgg li fi Maodo bàyyi bu dul dëgg dara du dëgg li fi Maodo bàyyi bu wérul dara wérul li fi Maodo bàyyi bu dul yoon dara du yoon kon nañu teguwaat foofu mag ñi nag ñu teg foofu moo tax njàngale Cheikh Al Hadji ci tëralinu yonent bi ñu indil ñu ko xëy na bu ñu ko jàppantee kenn ku nekk partagé ko ci digganteem ak moroomam danañu permettre ñu tegaat suñu tànk ci sunna suñu noom mu waa xam nga dafa am lu lu ñu bëri ñuy ziar di dem te xamuñu ni taxul ziar nangu gis nga ñëw ba ci réew du sëñ Babacar nga ñuuxu ko jël sa téléphone photo dugg naa ca réew ba sës naa ca tafu naa ca barrière ba nangam ak nangam taxul sa ziar nangu déedéet contraire bi. nitu yàlla soo koy ziar loo ko gën a daan loo ko gën a daan di ko gën a jox xorma yàlla di gën a faj sa aay mais ñun tant que ñooxuwuñu xam xabru bi wala ñooxuwuñu rawdu bi pour ñun suñu ñaan du nangu te sëñ Babacar bokkul ci nitu yàlla yooyu nga xamante ni da ngay dangay da ngay da ñëw ba ci moom di wax koo xam ne boo ko jubee 40 kilomètres bu dee bu dee oto nga dëgg dugg sëñ Babacar mi ngi dégg riiru moteur bi bu dee fas nga war sëñ Babacar mi ngi dégg tànki fas wi bu dee da ngay dox sëñ Abdou nee na néeg ba nga kër ga nga nekk di sangu toq ndox yi dal ci sa yaram di wadd ci suuf ngay fas yéene ziyaare sëñ Babacar tonk ndox yooyu bi ngi tànqal sëñ Babacar fi mu tëdd mais kooku boo ñëwee jarul ñuuxu ci réew mi looloo tax Alaaji Abdu ni booy ziyaar sëñ Babacar bu ko ñuuxu Alaaji Abdu nee na toog ci wetu sëñ Babacar di wax sa ñàkk teggin la mu ne koo xam ne booy départ mu yëg boo ñëwee ba ci kanamam looy wax Alaaji Abdu nee na sëñ Babacar jub ko rek moom xam na li la yëkkati xam na sa aajo nga dem doxi say soxla ban euh, xam nga taalibe Cheikh léegi Sénégal dañ ko def phénomène phénomène yére ak koppati maanaam léegi bu sa koppati rafetee sa yére rafet loolu mooy maanaam genre genre boobu lañ ko def donte ne nag amul taalibe Cheikhu Tidiane booy gis. xar kanamam di lëndëm loolu amul kenn mënul werd salaatul fatih sa xar kanam di lëndëm même boo jëlagul werd mais bëgg gi nga bëgg Cheikhou Tidiane di déglu salaatul fatih ak jëw jawhara loolu mooy def ci sa yaram wi leer loolu mooy daw ci sa sidit yi mooy daw ci sa ven yi loolu mooy tax sa yaram di nay damay wax ni taalibe cheikh bi li muy diwoo ak ki dul taalibe cheikh li muy diwoo buñ dee même pied buñ dee benn diw ni taalibe cheikh bi di leeree moom du ko leeree donte du waxuma xeesal de diw yi ñuy diw ci yaram maanaam bi taalibe cheikh bi di diwoo yow nga dem jënd ko yaakaar ni ci diw ji nga di ko diwoo mën nga koo diwoo fukki at doo leer li koy leeral moom mooy aynu rahmati rabbaniyati yaqutati mutahaqiqati haitati bi markadil fuhumi wal maani loolu moo leen di leeral loolu mënoo ci dara sëñ Babacar Si moo ni fala tara ahadan min ahlihi abadan illa wa shimahum Cheikh Al Khalifa ne doo ci gis kenn te xar kanam ba belliwul maanaam belli moom waa kër Cheikh ko yàlla jagleel mais taxul nag ñu ne loolu mooy mooy mooy mooy taalibe Cheikh Tidiane déedéet ki ki ñuy tuddee taalibe Cheikh Tidiane mooy ki dem jëli weer wi di ko def ni ñu ko ko sante boole ko ak charte yi foofu tam am na benn sew-sew léeg-léeg réew mi da ngay dégg ku ni la man de bëggoon naa jël weer mais daal xam nga bu dee bu dee nante li tax ñu koy wax voilà waaw bu dee naan xam nga rek affaire yi xam nga bàyyeegu ma quoi maanaam ñu ngi ci xale yi ñu ngi jël ci xale yi nangam ak nangam bu dee xale bu jigéen bi mi ngi farantu nangam ak nangam xam nga ñooñu dañ naan mënaguñoo jël tarixa bi parce que jubaguñu la boo wax sëñ Mansour si borom daara ji moo wax yow mi gën a dëng ci àdduna yow la Cheikh Tidiane Sow maanaam kii yaakaar ne addunaam yàqu na mënatul a baax mënatul a jub kooku la Cheikh soxla koo koy jël tarixa Cheikhu Tidiane weer du ko du mat weer nga gis ko naan est-ce que kii laa xamoon kooku la tariqa bi soxla moom la sëñ soo daan wax ni yére yi ñu gome paase ko riime ko ci armoire bi wutul dara ci fóot mi fóot lu tilim lañ koy def te cheikh day fóot comme ki tilim la soxla âge bi la julli waree nga majeur soo age boobu la la jël werd waree werd dofloowul kenn sànkul kenn or que nag da yokk parce que tariqa Cheikh Seydi Ahmad Tidiane moo quartier ñoo yem mbagg la ñuy rawantee ku la gën a maaj jëkk laa maaj dàq laa maaj wala ëpp garaat ci mbagg la ñuy rawantee waaye yàlla yàlla yàlla fay leen yiw yéen liggéey bi ngeen di def am na solo euh, lenn rek lañ leen ci ñaan mooy lu rafet génne leen waaye lu ñaaw jarul génn ndax benn publication bu ñaaw bu nit publier ku ca am accès bàkkaar bu mu ca am yow mi ko publier am nga ca bàkkaar bu ni toll ndax da ngay jot sa pourcentage damay wax ni internet bi ñu bëri ñu ngi ciy jëlee ay bàkkaar te bàyyi wuñ ci xel même lu bon li nga gis nga aimé ko aimé rek da nga ciy am bàkkaar nga vu ko da nga ciy am bàkkaar maanaam nga commentaire ko da nga am bàkkaar te gars yi duñ bàyyi loolu xel moo tax yéen it ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen ñaanit lu rafet ñu wane waaye lu ngeen gis lu nduroog safaan yow da ngay ñaan yàlla allahumma yaa man azhara al jamila wa satara al qabiha bis mu ne nga ñaan ko yàlla yàlla feeñalal ma sama yu rafet nëbbal ma sama yu ñaaw yow lu ñaaw loo gisal nit nëbbal ko lu rafet loo gis feeñalal yàlla yàlla may leen ndam yàlla yàlla defal leen ci réussite ñu ngi leen ci ndokkeel yàlla nañu yàlla may ñu fekk ko ñu yu bari bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye seen lam fi tàng na